ay mi ngi noonu jërë ngeen jëfati mbokki internet yi ñuy bàyyi xel ci seen plateforme web info tv fekkee ne abonné goo leen wooy leen gaaw daal di abonné daal bës li nga xamante mooy cloche notification bi su ko defee ngeen daal di am suñu ay information à temps réel ak aba le ayca mi ngi noonu nag nes tuut ñu daal dikk si li nga xamante ni moom mooy euh, showbiz bi bu ñu waxee showbiz xel dina ñëw si ki nga xamante ni moom mooy euh, Soxna Bator moom mi nga xamante ni moom mooy joué si série sénégalaise yi di si def euh, liggéey bu am solo nag depuis loolu nag gaa yaa ngi lam-laamee li nga xamante ni moom mooy mariage bi nga xamante ni moom mooy Soxna Bator kenn ku nekk nag di si def li nga xamante ni moom mooy sa liggéey ñun nag waa web info daal nañ si def liggéey bu am solo daal di topp xibaar bi fa mu leere ñu daal di information bu leer kii di soxna Bator ñaareel la si ki nga xamante ni moom mooy euh, artiste bu mag bi di wuyoo si turu euh, Tarba Mbaye ñu bañ a fàtte Alaaji Moustapha Mbaye baayam moom mii di Tarba Mbaye moo jël ki nga xamante ni moom mooy soxna Bator ñaareel euh, daal di koy may li nga xamante ni moom mooy koppar bu toll si trois millions 3 millions la ko daal di jox li nga xamante ni moom mooy euh, premier cadeau daal di ne mbir mi nag fa la yem Tarba Mbaye daal di jëlaat li nga xamante ni moom mooy euh, chaîne or daal di koy nga xamante ni moom mooy euh, soxna Bator bi bu leer la ñu daal di koy topp fuñ fuñ ko war a nag fa ko takkee nag mi ngi doon fi nga xamante ni moom mooy foofu sa Mbambilor la ta la Tarba Mbaye daal di dem ni moom mooy soxna Bator di def ci série sénégalaise yi mbokki internet yi loolu lañ leen indiloon sur seen plateforme di web info tv fekkee ne abonné ko leen wéy gaaw daal di abonné daal xamante mooy cloche notification bi su ko ngeen daal am information yu nañ à temps réel web info ak vrai gannaaw loolu nag ñu daal di ñaari marié yi heureux ménage yàlla na sëy